très chers amis internautes de la Sen Série TV maa ngi leen di nuyu leen remercier bu baax a baax si ni ngeen yàndee saa su ne ak sunu ay programme te seen rubrique décortique dafa ñëwaat seen série nitu intérêt épisode 2 ñu door ko ak Penda Ourous Penda Ourous nag moom gis nañu ne lépp lu mën pour atteindre objectif koy def ndax boo demee ni bëgg a wu ci moom tax nga koy jox chaque fin du mois cinquante mille juste pour bëgg a venger wu ci moom na pour lépp ngir atteindre ay objectif am ndax paa bi nga xam ni moom la ne bi mu nekkee xale da ko doon làmbaatu ngeen baal ma ci kàddu kàddu gi pa boobu lay yónnee chaque fin du mois cinquante mille euh, ba tax loolu nag lim ci undoo du dara dul bëgg rek pa bi daal di koy euh, jege daal di koy euh, wóolu ba tax bis bu dajee ak moom mu daal di koy def lim koy def ndax yaakaar naa ni xale nekk na koo xam ni du fàtte kon loo koy def rek def ko loo xam ni lu baax la ndax bis bu màggee ba fàttaliku ko mën na retourner contre yow kon moom mi nga xam ni moo di vieux boobu peut-être bi muy làmbaatu ki nga xam ni moo di Penda Urus moo ko ëppoon doole waaye na doole te kon yaakaar naa mën na taxaw daal di fayu ci lépp loo xam ni danger bu ñëwoon ci moom la ñu jàll ci Ndella la nag moom ngi waxtaan ak Ceen Ndella Fall ci mbirum Penda Wurus ndax jàpp na ni Penda Wurus ni mu doon xoolee Ceen Ndella da koo nopp waaye moom mi nga xam ni moo di Penda Wurus moom jàpp na ni moom it Ceen Ndella euh, nobbu ko ndax xoolu ko sax kon li mu bëgg du gaa yomb ba tax na nag mu bëgg jaar ci jabar ngir jot ko li ñu naan nag euh, nit euh, bu la bëggee jéem-jéem jotu la day dem si ki la gën a jege mu jaar fa ngir yàqal la waaye ki nga xam ni moo di benn wuru euh, moom it ci ki gën a jege cendeela la bëgg a jaar muy jabaram ngir daal di koy atteindre ñu jàll ci moom cendeela moom nag gis nañu ni mokk ulay seen euh, relation nekk na loo xam ni euh, moom moo ko lal amul benn intérêt boo xam ni lal na ko ku leen gis ni ñuy defee ak ni ñuy doxalee xam ni seen amour dafa naturel waaye une complicité parfaite boo xam ne itam mu ngi wu ci diggante lu am solo ci sëy kon yaakaar naa ni ñoom ñaar seen sëy boobu ci nar a dugg itam yaa ciy des wala nag boo ci duggee ngir am ci bépp lépp benn affaire boo xam ni rek da nga ko cee bëgg a yàq yaakaar naa yaay mujjee rek ak euh, problème yaay mujjee ak gàccee ñu jàll ci beneen séquence li ñu naan euh, tel mère tel fille euh, peut-être dañ koy dëggal ci diggante Penda Ourse ak yaayam waaye nag tel mère tel fille duñu ko dëggal ci diggante say ak yaayam di yaay Penda Ourse ba tey ndax gis nañu ni Ourse copier-coller yaayam la lépp luy Penda Ourse ne rek yaayam bëgg na ko yaayam ànd na ci kon ñoo bokk benn xalaat ñoo bokk fenn fu ñuy xalaatee bokk benn objectif xam ne moo di say moom nekkul ci seen ay conneries yooyu moom bëggul benn yoon euh, soutenir leen ci magu yi nga xam ne ñu ngi koy def ngir atteindre seen objectif ba tax na euh, moom mi nga xam ne moo di yaayam daal di mer ba bëgg koo génnee kër gi waaye moom euh, say li ñu naan wéet gore ñàkk wéet gore li nga xam ni moom moo am même buñ koy génnee kër gi moo ko gënal muy def naka sudul noonu cendee la nag gis nañ mu ngi xalaataat ci li nga xam ni ulay wax na ko ko par rapport ak école bi ak yaayam tamit lim ko ci wax waaye ulay gis nañu ni convaincre na ko ba mujjee nangu waaye nag lim bëgg lay tamit daal di na caa xaj kon Thiendella na ba li ko mooy toog ci kër gi daal di euh, yor kër gi gérer ménage waroon na koo mun a bàyyi ndax ku ne xam na ni parfois jigéen day am sixième sens te nag xelam lu ci nekk rek parfois day am ñu jàll ci Ndella ak Ulay ñoom nag euh, suñu moyuwul rek dinañu am ay euh, jafe-jafe yu métti ci kër gi lu ko waral nag lu dul ñàkk worma ak ñàkk kersa bi nga xam ni Ndella di won Ulay ndax ku ne xam na ni ni euh, yaay yaay rek la nit euh, nu lu mu mënti bon euh, yaay lu mu mënti bon wala nu mënti mel doom bëgg kenn di ko manqué de respect wala kenn di ko toroxal ba tax na kon mi nga xam ni moo di ndee la su moyul ulee dina ko bàyyi ci di wax lu bon ak ak di ñàkkal kersa di ñàkk respect kaw tàntaayu uley ndax bu dul dara sax waroon na cee xool uley moom nga xam ni doomam la ñu jàll ci Penda Urus Penda Urus nag beneen nitu intérêt mooy moom ba tax na nag Thiendella la visé woon ndax alal waaye tey bi demee ba gis jamante fee la teg Thiendella ngir ngir dem sëy ak jamanteer bi sëy takk suuf waaye nag yaakaar naa dugg na ci loo xam ne pour mu génn ci du yomb ci moom ndax ku ne xam na ni pa bi ñu gis nekkul koo xam ni euh, day bàyyee noonu rek mu sedd kon nag moom mi nga xam ni moo di Penda Urus bëgg euh, ak bëgg alalu àdduna bëgg koppar daal dina koy dugal ci musiba daal dina koy dugal ci loo xam ni pour mu génn ci du yomb waaye nag moom jàpp na ni pareegul pour cendeela ndax rek cendeela alalam la ñu jeexal ak moom Penda Urus moom euh, wane na ni bokkul ak yeneen xale yu jigéen yi ndax can canam la xaalisu can alal daal di koy jëndee coffre-fort loolu nag yaakaar naa mooy wane ni coffre-fort bi nga xam ni mooy def alal looloo ko gën a intéressé si àdduna alal la gën a yittewoo ci àdduna nit boo bi buñ la joxee sa can li nga war a def mooy euh, jënd ci loo xam ni day tax euh, saa boo amee problème daal di julli ñaan yàlla comme ni ko ulay defee waaye nag moom au contraire wu ko noonu coffre-fort bi nga xam ni moo koy dundal alal bi koy dundal moom la dem daal di siy jënd ngir nag remplir ay poche am ndax xam na ni coffre-fort boobu xaalisu góor ñi rek la ko mën a euh, remplir mbokk internet yi foofu la yem ci épisode 2 bu série nitu intérêt wax leen dig daje beneen épisode waaye laata boobu woy leen di abonné ci seen série TV bu leen fàttee ba si de notification yi pour ngeen di jot suñ vidéo yi à temps réel ngeen jëf